asalaamaaleykum Serigne Mbacké Mara président association solidaire sans frontières euh, Serigne Mbacké Dieng Mourides point info maa ñëw am euh, laaj yu ma la bëggoon a laaj ci xew-xew yi fi am si les dernières quarante huit heures mooy comme lëmbe Sénégal rawatina fii ci Touba ñu gis fii bërki dem rek xale boo xam ne amul fukki at ñu égorgé ko maanaam ñu rendi ko euh, ñu bëggoon xam ban point de vue la ci solidarité sans frontières am manque de sécurité bi nga xam ne que mooy régné à Touba ban xalaat la ci wala ban gis-gis la ci solidarité sans frontières am. asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, euh, Serigne Mbacke Dieng euh, maa ngi lay sant bu baax Serigne Mbacke maara dootu président Solidarité sans frontières mais léegi mi ngi nekk ci mi ngi nekk conseil en communication waaw sëñ Mbacke wax nga dëgg noo ngi leen di sant bu baax di sant itam Mouride Info di wane itam seen pas-pas ak seen yéene ci dëkk bi nga xam ne mooy Touba nga xam ne jamono yi ne saa dara xewee rek non seulement ñoom dana danañ relater les faits mais danañ demander ay solution parce que am na solo nag itam lu mën a xewati nañ relater fee bi mais nañ xalaat ay solution solution yooyu ngay wax nag ci manque de sécurité bi Touba moom loolu ñëpp xam na ne mi ngi nekk rek toujours li ma koy wax du ma bàyyi di ko wax muy recensement bi Touba tey soo xoolee ñaata post moo fi nekk euh, benn poste de police ak benn commissariat soo demee tey Pikine wala Guédiawaye da nga fa fekk sept postes de police benn commissariat kon Touba yaakaar ne non seulement commissariat yi war nañ koo yokk wala poste de police ñu yokk mais effectif yi nga xam ne ñi ngi ci nekk ci dëkk bi tam war nañ koo yokk ndax dayoo dëkk bi moo demee noonu leneen li ci des tam moo di dëkk bi dafa yaatu waaye war nañoo fexe ba itam xool fexe ba information aussi nit ñi ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu jàngal leen nan la ñuy joxe information loolu daal yaakaar naa sëriñ suñ ko defee dana baax waaye jàpp naan daal dëkk bi daal ak lu mën a xew. da xool par exemple poste de police euh, commissariat bi moo fi nekk ci entrée Touba euh, plus ou moins euh, nga dem guy mbind mais poste police guy mbind bi mais mais mais mais pertinence la wala opportunité parce que dama jàpp ne man porte poste boobu baax na lool alhamdulilah ñi ngi def liggéey bu extraordinaire mais yaakaar naa ne waroon na gën a mën a nekk foo xam ne nii wax dëgg yàlla nag fi mu nekk yaakaar naa waroon nañoo mën a jël place bu bu bu gën a yaatu boobu bu gën nekk ci digg Touba aussi ñu def ko fi man dama yaakaar ne kon opportunité le mais kon du pertinence kon dal man lima ci gis moy il faut que ñu yok effectivité effectivité euh, euh, effectif police bi yok poste de police yi même su fekkee mën na fay defaat sax beneen commissariat comme ñun ay commissariat euh, spécial lañu am wala wala wala spéciaux di ma commissariat spécial lañu am mais japp na ne kon wax dëgg yalla nak pour que li li fi xew bañ fee xewati il faut que ñu yokk. effectif police yokk poste de police yi gën leen a del euh, gën leen a dooleel euh, ba pare nag ñu nekk ci point yu yu stratégique ci dëkk bi man daal jàpp naa ne loolu moom suñ ko defee xëy na lu baree bari dana wàññiku leen li ci des nag mooy sensibiliser population bi euh, munu cee ñàkk bañ xam kan mooy kan kuy def lan te dem sëñ Paqué bul fàtte ne Ila Touba mi ngi ñëw Ila Touba ni muy indee comme ci Touba noonu lay indee insécurité ci Touba lu mel ni euh, euh, euh, tribunal bi nga xam ne mooy tribunal départemental Mbacké nga xam ne tribunal d'instance la war nañoo wax autorité yi ñu def de telle sorte que ñu def ko tribunal de grande instance nga xam ne njaaxum yi nga xam ne yàlla tere mi ngi fi am au moins au moins danañ mën a fexe ba di ko résoudre au moins au niveau départemental di bañ a dem ba ba Jurbel mag bii nga xam ne itam moo nekk Mbacké ñun ñëpp yàlla nañu ci yàlla musal waaye itam ñuy yokkaat ko ba mën a mbooloo ndax Ila Touba dafay ñëw te Ila Touba ni muy indee euh, euh, euh, koom-koom ci dëkk bi noonu lay indee aussi comment dirais-je encore insécurité ci dëkk bi ndax kenn ku ne xam ne ab autoroute dëkk bu mu traversé dem bi day ñëw dem bi day gaaw ñëw bi day gaaw te leen lu ne mën naa am donc nañ ko waajal. Euh, bala balaa agsi. Euh, jërëjëf sëriñ bi ci yooyu leeral euh, ñu bëggoon a xam tamit ndax jotut kilifa yi ñu impliqué leen ci lutte contre l' insécurité wala criminalité bi nga am Touba rawatina ko nga xam ne mi ngi mel ne sëriñ Cheikh Bass bi nga xam ne ko mooy porte parole communauté Mouride. Mbàkke nga wax ne autorité religieuse yi ndax duñ leen impliqué ah kay ñoom ñoo moom dëkk bi autorité religieuse yi dëkk bi seenu dëkk la nit mënu fee def lu ñu xamut. waaye impliqué ko googu ngay wax ba tudd euh, ku mel ne sëñ Bass Abdou Khader man euh, dèjà toog naa ak sëñ Bass Abdou Khader ça fait plus d'un an nu waxtaan ci lu mel noonu ma xamal ko ne ko Touba jàpp naa ne ku mel ne Sonatel mi ngi ci dëkk bi defulu dara waa Touba waroon nañoo mën a gis Sonatel mu jox nu au moins benn numéro vert wala ñaari numéro vert ñu wut benn place boo xam ne nii dañ fay wut ay xale lu ma tolloog lu mat cinq wala six xale xale yooyu itam comme commune bi commune spéciale la ñu fexé ba ay contrat ci commune bi nga sur 24, heures dañu nekk sur place fexé ba numéro vert wala numéro vert yoy 84 chef de quartier nekk ci dëkk bi ñu fexé ba ñëpp xam ko suñu paré publier ko ba population bépp xam ko nga xamné ki nga xamné dafa gis kuy def aw ñaawteef ci dëkk bi tam am amul fitu dénoncé ko day dugg ci numéro vert bi su numéro vert da nekk en communication avec la gendarmerie avec la police ak safinatul aman nga xam ne lépp lu dégg ci benn quartier ak fu mu mën a doon dana ko mën a signaler te itam lu mel ne safinatul aman ñu jox leen ay moyens yoo xam ne nii euh, euh, ay chef de quartier ak chef nga fa nangama nga fa a dénoncer ci numéro vert bi numéro vert bi def relais au niveau comme ni ko waxee de police de la ak ci safinatul aman loolu dana permettre ñoom it ñu am renseignement parce que effective bi nañ ko yokk mais loo yokk yokk effectif dëkk bi dafa rëy rëyaay boo xam ne nii effectif bi aussi il faut mu am information bu muy liggéey Touba dafa soxla information dafa soxla information boo xam ne saa yu dara xewee ñu mën koo relayer ñi ko war a xam ñëpp xam ko ñi ñi ko war a saytu ñëpp di ko saytu en vingt quatre heures loolu loolu loolu loolu loolu loolu loolu ñu lijjanti ko beneen bi ci des itam moo di ay nit ñi ngi fii ñëw ci dëkk bi ci Touba di louer dafa a am léegi ñu imposer contrat de location nga xam ne képp kuy luye nit day am contrat de location ñu enregistré ko xam kii mooy kan ak lu muy def ci dëkk bi ñu mën koo relayer au niveau de la police même boutique yi même ku fi ñëw di jaay ak loo mën a jaay dañoo war a fexe ba imposer ñëpp des contrats de location yoo xam ne ci contrat boobu ci ngay mën a jaar non seulement commune bi dana ci mën a am xaalis mais da nga ci mën a jaar aussi pour identifier nit ñi ba xam kan mooy kan ndax nit ki su ñëwee tey sa kër ñu imposer la kii kat

loolu luñ fi mën a indi ci mbooloo xay na euh, ci sécurité dana baax mais il faut que sécurité bi ànd ak information bu ñuy relayer loolu waxaat na naa ci ak sëñ Cheikh Bass mel na ni itam moom mi ngi ci dox jéego te rafet naa ci njort waaye loolu moo mënta ñàkk kon sëñ Mbacke ñun daal noo ngi leen di sant bu baax yéen euh, waa Mouride Info ndax gis nañ seen taxawaay ndax Touba euh, saa yu dara xewee d'accord naa man ci ralaate bi waaye nag di di yéen it en tant que site internet en tant que nit ñoo xam ne aussi yéen a ngi liggéey euh, ci ci ci information baax na aussi ngeen di génne ay solution ba nit ñi xam ne lii su fi amee lii mo suñ ko defee euh, mooy tax lii dootu fi amati kon maa ngi leen di gërëm di leen sant euh, Serigne Mbacke Mara nekk ci relation ci communication ci Soldats sans frontières baax na jërë ngeen jëf yàlla na yàlla.